ibraayima sax maamu cosaan mi fab na li mu jële woon lépp ca xare ba jox asaka ja melkisedek yoonu musaa digle na ne ni bokk ci giiru lewi te di ay sëriñ nañu jot asaka ji ci alelu bànni israyil doonte sax ñuy seeni mbokk te soqi ko ci ibraayima waaye melkisedek mi bokkul woon ci giiru lewi jotoon na asaka ji ci aleli ibraayima